Dame Mbodj di la dalal. maa ngi lay fay euh, Elisabeth di leen euh, ñaanal yendu jàmm. Euh, di fàttali suñu auditeurs yi ne moom mi Dame mooy secrétaire général bu CUSEMS authentique bokk ci G20 tey ñu waxtaanee mbiri Diary Sow yow ngay enseignant doon tamit formateur ban lecture nga def ci mbir mi tey ji enquête yi wax ne famu ne moo fa bàyyi boppam. waaw loolu moom daanaka ci ko xam ne enquête yi demee mën na jàpp ni foofu ñu wax. ne la fa la nekk moo fa bàyyi boppam man loolu mën naa ko gëm loolu daal laa gëmagun ci enquête bi parce que jàpp naa ne France quand même su fekkoon te ni mi ngi woon ci jafe-jafe euh, ce serait une pour la France sax ñu mën a euh, toll fii ci nombre de jour te xamuñu ne mi ngi ci jafe-jafe wala moo fa bàyyi boppam mais nag France comme dafa am ay loi boppam nit bu demalee boppam kenn ñëmu koo bundoxataal donc kon buñ ko waxee rek gëm naa ko maintenant euh, li ma ciy jàngat nag mm-hmm. mooy jafe-jafe bu mu wane ci sunum njàng. maanaam xale boo xam ne dañ koo waajal waaye waajal ba des na. loolu laa ci jàngat waaj wi la wala tànneef bi. waaw mooy waajal rek xam nga waajal mooy. waajal ci nin jàppe ni moom baax na ba présenté ko àdduna bi ni baax na waajal ko aussi ba moom mu gëm ni moom mii nin ko waajale baax na ci wàllu xam-xam ak ci wàllu yar parce que njàngale mi dañ ko tudde éducation national maanaam ministère boo am dañ fay yare di fa jàngale boo ko jëlee ci ñaari boor yépp am nay jafe-jafe bu dee ci yar bi la bu fekkente ne lii ab xale mën na koo def fii Sénégal ci tout tànk boo am ci ñaar fukki at la toll dem mën a jël décision bu toll nii demal boppam te waxtaan ceeg ay jegeñaaleem waxtaan ceeg ay xaritam waxtaan ceeg ay waajuram kooku yar ba am na jafe-jafe bu fekkente ni la ko tax a def tamit dafa tiit wala leneen a ko waral ba mu def loolot yar ba am na jafe-jafe parce que xale dañ koy waajal ba lépp lu ñëw te mosu koo gis it mu man koo dékku est ce que dégg nga li ma wax. Mm. donc bu dee nag ci xam-xam bi nit ñi moom la ñuy soupçonné ni moo tax mu néew ba mu ragal te man jàpp ma ni loolu la parce que jaari saw quand même. nan nga xalaatee wala sax nan nga ko jàngatee tey jii nee nañu bu ñu sukkandikoo ba tey ci information yi nga xam ne ñoo ngi jàll euh, nee nañu bokk na ci ay notam li tax mu dem ndax loolu. Euh, nan lañ ko mën a expliquer tey jii daan. waaw man loolu xamal tax xamal tax gaw ma ko parce que ñi ci wax jàpp ma ne xam nañ luy li lan mooy école euh, Louis le Grand maanaam ak école yi mel ne moom. les grandes écoles comme leen di tuddee ñoom ay école préparatoire lañ duñ ay université ñu bëri dañuy jaxase ñoom nekkuñu ay université jaari saw nekkagul université moom li mu nekk mooy classe préparatoire mooy prépa prépa étoilé maanaam prépa prépa bi ëpp doole moom ci la bokk maanaam dañ leen a sélectionné ñi ëpp doole ñoom ñoo fay dem Sénégal mi ngi yóbbu at mu ne euh, juróom fukki bourse moom lay maye ci classe prép euh, ci ci bourse d' yi bourse d' excellence yi ci juróom-benn fukk a euh, juróom-benn fukki bourse hmm. waaw léegi te juróom-benn fukki yooyu fukk rek ñoo ci dem ci école yu mag a mag mag yu mel ni Louis le Grand parce que France ñett rek la ci am. Henri IV la ci am ak euh, le lycée de Lyon ak euh, ak euh, Louis le Grand ñett yooyu la France am ci grande école yuy def classe préparatoire Sénégal fukk la ci placé Louis le Grand ñett la ci jël jëlu ci ñeent sax ñett la jël yeneen ñeneen ñi ñoo jël juróom-ñaar yi ñoo séddoo juróom-ñaar daa am Louis le Grand moo jël ñett yi am ku jël ñett ki am ku jël ñeent mooy fukk ci Sénégal am. waaw léegi nag Sénégal fukkam yooyu mooy fukk yi gën a xarañ parce que Sénégal sax moo leen sélectionnel boppam parce que luy la grand da lay nombre bi muy jël nga sélectionnel sa bopp waaw léegi nag kon bu ñu ko jëlee moom jaari saw nga xam dañ koo présenté ci àdduna bi yëpp comme xale bi nga xam ne moo gën a xarañ ci ñaari at yi mujj yi nga xam ne moom mooy roon njàngam muy première ak terminalam mm-hmm. kon man jàpp naa ne jafe-jafe bu mel bu mel nii bu amee ñooñu li ñu wax ñi bind ni problème mu performance ak notes yu bon école boobu do notes yi c'est juste pour rek won la sa niveau rek pour préparer la mais du ay not comme ay baccalauréat ay notes yu lay permettre ngay avancer c'est pas ça non non du loolu ñu koy ñu koy wax xamuñu lu xew du loolu c'est pas ça euh, donc man yaakaaruma ni ay notes yu wàcc kese la quoi mais Diary Sow doful elle est très intelligente et puis c'est une si am na niveau donc su demee ba gis ni waajal bi des na parce que système d' enseignement yi bu fekkente ni baaxul ni mu war a baaxee lu looy gën a dem yow mi excellent da ngay dajeeg ñoo xam ni te nga gis ne ñoom ñoo la ëpp fraîcheur ñoom ñoo la gën a ñoom la ñoom lañ gën a waajal même fekkente ni gënuñ gënuñ la aay parce que ñun man li ma ciy jàngat rek bu fekkente ni thèse boobu surtout am na lu ci jege mooy kon kon ni ñuy waajale suñuy suñuy suñuy xale war nañ ko seetaat parce que su fekkente ni euh, xale waajaloo ko waajal bi nga am maanaam guure ko guure ko ba mu ëpp bu fekkente ni loolu daf ci am bu demee lu muy gën a dem kanam performance am day wàññeeku loolu moom xala euh, science wane na ko. Mm-hmm. maanaam boo waajalee xale bi ci waaj si da nga ko teel a defal bourrage. yokkal koy matière yu méttee métti ba noppi njàng ma xeetu njàngin ma yàgg métti ba nga xam si lu ne lañ koy dugal ci boppam bu demee bay gën a jëm mag nam brillant woon day wàññeeku loolu tam mën te pourtant àggagu ca sax. tey jii ci taarix buñ ci tegee nag buñ ci tegee tey jii ci taarix ndax am na ay ndongo daara yi nga xam ne bokk nañu ci bourse d'excellence yooyu ñu mm. yóbbu leen ca Louis le Grand particulièrement ñu euh, daal di fa réussir. effectivement déjà moom ñi mu fa àndal rek ñu ngi dem amuñu problème nee naa la Louis le Grand boobu eh, am na ay xale yoo xam ne am na année yoo xam ne lycée Limamoulaye placé na ay élèves yoo xam ne ñoom ñoo jiitu woon français yi jiitu leen jiitu ci ans yëpp ñu raw leen. maanaam raw mooy gën leen a performant gën leen a taxaw ca na nga xam noonu lañ leen di tàggate te ñim àndal nit kenn déggagul benn problème am si ca ñoom ñëpp jàll nañ jàll nañ deuxième année deux donc donc donc foofu dañ leen di waajal waajal pour ñu defi ay école euh, pour ñu defi ay con grand concours ñu ngi leen tuddee ay grand concours en France nga xam ne bu ñu génn day nekk des ingénieurs euh, donc de grands ingénieurs au niveau au niveau de plusieurs euh, secteurs dans la France au niveau de dans dans dans le domaine de la science donc loolu lañ leen di préparer ñoom xale yooyu jaari saw nag encore une fois euh, ce que les gens ne ne ne ne disent pas mooy peut-être bu ñuy xool yeneen piste nañ xool ci par rapport ak piste nañ ko mayee euh, euh, coow parce que dafa ànd ak coow. te coow d'abord d'abord coow baaxul maanaam fu nañu présenté ko fa média yëpp di ci wax depuis deux ans wala ñetti at a ngi nii jaari saw jaari saw loolu baaxul d'abord ci suñu culture deuxièmement man gis naa ni ministère éducation nationale dañoo utiliser ndaw si dañoo euh, xale bu jigéen bi dañoo dañ koo politiser pour ñoom wane ne li ñuy def baax na maanaam dañ koy utiliser comme étant un moyen de dire que parce que bu ñu fàtte ni lycée d'excellence de Diourbel ci ci nguuru président Macky Sall lañ ko ubbi mais également Serigne Mbaye caam moo ko ubbi léegi nag dafa bëggoon woon ñi li ma def baax na. donc am na sax ay produits yoo xam mën naa ko présenté dans le monde di ko campagne fu mu yóbbu ko fa barki démb ni ko indee muy bind benn livre am boo xam ne euh, vraiment amuloon benn enjeu bu tax mu bind ko d'ailleurs c'est pas sa matière principale parce que littérature la euh, donc benn roman la bind lu ci jaroon ñu ko jëlee France di indi fii fu ne ñu yóbbu ko fa président dugal ci huit huit yi ñu ànd di ko escorter di ko teg pression boo xam ne ëllëg mën na ko yàqal yooyu yëpp man ay jafe-jafe la te ñoom ñëpp kenn def ko ci sa doom parce que moom moom mi eh, boobu muy lim sànq doomam ma nga ca Canada di jàng te defaluñ ko loolu donc man li ma jàpp mooy am nay jafe-jafe ci ni ñuy préparé suñuy kàngam moom laay tuddee suñuy élèves yi nga xam ñooy suñuy kàngam ni leen di waajale des na loolu la ñu war a toog seetaat bu ko defee ñu xool yan muy rëq-rëq yi ci ni leen di présenter peuple bi ni leen di présenter seen moromu élèves yi ni leen di présenter bi li ñuy def ci ñoom ci xam-xam et cetera yooyu yëpp lu ñu war a seet la bu ko defee vraiment ñu bañ am benn jafe-jafe man jàpp naa ne lii mooy solution wax ci leneen muy euh, mbas mi nga xam ne moo ngi gën di law tey jàpp nañ ne tamit euh, dafa gën a soxor tey mu am ñu proposé ne euh, nañu tëjaat école yi ndax ndaw yi ñu aar leen waaye it ñu aar ña leen di jàngal. waaw waaw waaw waaw waaw loolu moom man ñun li ñu jàpp mooy wax dëgg yàlla jafe-jafe am na. Euh, mbas mi mi ngi ci biir école yi am na ay cas yu nu am ci école yi mais euh, déclaration yi may dégg man doyuma parce que bu nee nañ ko tëj tëj bi man jàpp ma ne solution la bu fekkonte nag option bi président jël mooy day tëj lépp kon tëj école yi moom mënta ñàkk mais nekkul ci option boobu comme day vivre avec le virus ba du ko assumer kon jàpp naa ne école yi pareewul pour tëj ko léegi léegi li ma jàpp mooy euh, logique bi mu nekk mooy logique yokk kaay yokk kaay contrairement ak li yi wax. Mm. gis nga le président Macky ak ñi koy jox décision yi parce que décision yi jógewul ci moom du moom mooy décider c'est loolu aussi il faut nit ñi ko pandémie bi OMS moo yore décision yi au mondial non attends ah. ce que nous disons là c'est très précis au OMS moo yore la stratégie mm-hmm. de lutte contre la Covid-19 kooku yor état yoru yoruñu ko loolu il faut nit ñi comprendre ko OMS boobu tamit dafa am ñu koy joxañ fi mu war a jëm mooy ñi nga xam ñoo defar seeni vaccin ñi nga xam ñooy defar garab yi ci àdduna ñu tuddi leen big pharma ñoom ñooy wax OMS nii nga jëm bul jëm nee moo tax bi di jee rawul waxee rek ñu ne ko xamoo dara li ngay wax mën ta faj dindi feebar bi parce que booba ñu ngi naan mi ngi ñuy yàqal nan gaaw faagaagal ko xamal ma la wax parce que pourtant la mu doon wax baaxoon na parce que dañ buñ teelee faj nit rek mu wér. donc pour woon na ni euh, président Macky Sall des dara dañ koy wax ne ko defal rek mu def léegi loolu ñu ko wax ne ko na ko def nag li ci gën a am solo actuellement dañoo bëgg a ñàkk nit ñi ci seen ñàkk yi nga xam kenn wóoluwu ko. léegi nag loolu mooy coow li moo tax UNICEF bu nee nañ commencé jàng jàng sax justement bu ko euh, yaa ngi koy anticiper gis nañu benn note bi nga xam ne ñu ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi muy note UNICEF nee nañu euh, muy wax ne enseignants yi wax nañ bokk ci ñi ñuy wax njëkk a ñàkk ndax ay euh, ñoo ngi yor ay ndaw te dana tax ñu wàññi lii di law gi. waaw effectivement loolu mooy feeñ nañ parce que ñoom gis nañ ni bu ñu amee lu mat cent et quelques Euh, bu ñu leen vacciner dinañ am nombre ba ngand parce que ñoom gis nañ ni ay réticence am na ci société yi fi toll nii Sénégal ak France ak réew yu mel ñoom actuellement nit dañu ñàkk woon léegi nag daa am ñi nga xam yaakaar nañ ni mën nañoo jaar ci pression pour ñàkk leen loolu tax ñu boole wàll yi te loolu tegul fenn dul ci programme Illuminati yi ñu yore mooy nañ dugal vaccin bi surtout Pfizer ak Moderna bi nga xam ni ARN message lañ ko jaarale muy méthode inédite boo xam si mosuñu ko testé ci ay nit ay mala rek lañ ko mos a testé moom tax ñun dañoo bëgg a def ay mala. kon yow jàppoon ne proposition la rek. propos déedéet parce que UNICEF UNICEF li ci lalu bëri na UNICEF du caaxaan bu doon yow Elisabeth yaa ko proposé. wala ab politicien wuyaa wuyaa bu nekk fii Sénégal dama naan loolu garaawul loolu ay waxam la rek mais UNICEF du caaxaan UNICEF sañ ñu jël loo xam ne waxtaane wuñ ko ca kaw duñ dañuy am benn stratégie wax li ñuy wax pour pour pour pour tester état yi pour ndax ñeme na jëm côté boobu lool moo tax UNICEF ay waxam du waxu caaxaan yu ni yu ñuy soofantal ñoom loolu ñu wax lu garaaw la ñu ngi leen di xaar nag ñun jàngalekat yi président mac Sall nag la ñuy accuser moo nekk derrière parce que UNICEF ñamuñ def yooyu wax yooyu ci waxi caaxaan léegi liñ leen di teel a yëgal mooy jàngalekat yi ñàkkuwul parce que ñàkk yi wóoluwuñ ko président mak Sall sax wóoluwu ko moom bi ñu ko nee ndax di nga ñàkk wax ci dara néewul waaw néewul déet directeur euh, PDG Pfizer moom ci boom mi nga xam na ci ñi defar ñàkk ci ñàkk surtout boobu gën a dangereux moom bokk na ci ñi ko defar moom ak ay employé am nee na ñàkkuwun parce que a tax ñàkkuwun mooy nee na ñàkk yi bëriwul lool te ñoom duñ njëkk a ñàkku day mel ni kon ñoom dañoo égoïste waxi caaxaan ñoom kay ñoo njëkk a war a wane exemple ñàkk pour nit ñi dalal seen xel donc pour wan la ne kon ci àdduna bi ay ponkal ñoo taxaw ne ku ñàkku dee nga parce que da nga yàq sa sa sa système immunitaire loolu ay ponkal ñoo ko du ay caaxaan ay docteur Didier ay professeur Didier Raoult nga xam ñi yore seen làmmiñ di wax yëpp ñu ci ëpp moo leen formé ay Christian Peron le projet Christian Peron nga xam ne ay ay ponkal lañ lu ne ñu def ko ci maladie infectieuse ñooñu lii ñu bëgg def def nit ñi ay cobaye ku ko jël risque ba def ko ci sa yaram inoculé des produits toxiques te ñoom jëluñ ci benn engagement par rapport a jeexital yi mu am ci seen yaram yéen ñu koy jël. bu ngeen ko jëlee yéen a ci musiba waa léegi ñun loolu lépp daan ko xam de ay intellectuel ñun jàngalekat di former bay former président Macky Sall moomu ak nguuram ñu ñëw ñu bëgg ñoo jaar ñun ci suuf naan ay yéen da ngeen di ñàkkutu mais ñun ñàkkooguñ bu ñàkku day am na ñàkku ñàkku njabootam ñàkk ay ministre ak ay député am yi ànd ak moom ci lii mu bëgg a def ak Illuminati yi ñun nag ñu xaar ñun jàngalekat yi ak yeneen membre askan wi ñu xaar fii ak fukki at ndaxam ñoom dina def ay effet ci ñoom pour ñun ñu doog a ñor. Dame Mbodj ñu ngi lay jaajëfal a baax. jërëjëf.